bismillah bismillah inna waliyallah bi barakati borom Tuubaa wajaal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawil wa qalbi arshida barke Cheikh Ibrahima Fall sadd lisaani nawir janaani saffi amaani wasid baraa'i mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw ba nu sante yàlla sunu borom subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi tedd bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama di sant ak sayxanaa Ahmadul Xadim di jaaraamal ak Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine ñoo ngi leen di nuyu ta di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen baal xaq ci weeru sell wu tedd wi di chehru Ramadan Mubarak di ñaan saa borom kàttanal ñu ban man koo yeggale kem nañ ko bëggee mu nangul suñ lépp fulal ñu ko làqal ñu ko fa yàq àggul mu mel ne bu ñu gisee mbooloo mi rek. am na loo xamante ni moo ko sabab te moo di wàccaay bis boo xamante ni dañ koo baaxa di amele muy bisub ziar kan la ñuy ziar muy suñu sang bu tedd boobee di cheikh Abdoulahi Mbacke moom sëñ Modou Astou moom sëñ Mor Soxna moom sëriñ Mamor jaara borom saam mu mel ni daara Miftahul Xuyuri wal Maram soppee sëñ Mor Diarra ñoo ko daan amal. ci at mu jot mu mel ne ren ji war a nekk ginnaaw bu ñu waree moo sababoon daje bi tey mu ngi daje fàttali ak daje yëgle ci mboolem képp koo xamante ni mi ngi ci biir daara ji waaye di woo képp koo xamante ni ñu ngi ci biir euh, gox bii di suñu wayjur yi ak suñu mag ñeeg ñëpp rek ñu ngi leen ci woo ci bis boobu nga xamante ni ñu ngi koy amal. mu doon bis boo xamante ni bisub sant lay doon ngir tawfeex gi nga xamante ni sëriñ bi defal nañu ko ba tax ñu am yéene njukkeel ko addiye joo xamante ni dañ ko koy jox ngir waajale ko màggal bi sëñ Mor Jaara boobee ndax amuñu luñ ko fayee waaye xëy na loolee moom lañ amoon ci li nga xamante ni jàpp nañ ni kat buñ ko defee danañ danañ danañ mën a dabu li nga xamante ni maam mooy tawfeex gi nga xam ne sëriñ bi defal nañu ko te doonte mënuñu ko kon addiya nag saa yuñ ko waxee rek xel yëpp day dem ci euh, sas yoo xamante ni des na ko waajal ngir mën koo jébbale kon doole ci loolee lañuy ñuy fàttali ko rek bokki taalibe yi kull képp koo xamante ni mi ngi ci daara ji moo xam ñu nekk ci biir dëkk bi di Tuubaa Mbàkke moo xam ñu nekk boori sowu wala ñi nga xamante ñoo nekk ci bitim réew ñëpp ñu ngi leen ci woo te ñu jéem a góorgóor bu baax a baax def ci yitte ngir bu nu waree àddiyee jëpp daje num man di toll euh, ñu mën ko jëbal suñu sang bu baax boobe kon euh, loole lañu amoon ci li nga xamante ni moom lañuy woo bokk taalibe yi di leen ci loo xel bu baax a baax baax kon bu ko defee rek mu mel ni kàddu gi dañ koy jël jox ko suñu jëriñ sëriñ Aramin Mbaw auzu billah bismillah inna walillah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu yéen kenn ku ne sa tur ak sa sant di ñaanal si Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak bu wér di ko ñaanal si Amdu Moodu Mbenda xalifa général day Baye Fall di ko si Cheikh Isma xalifa Maam Mor Jaar borom sax mu yàgg fi lool te ànd ak bu wér di ñaanal bi muy Cheikh Abdoulahi Mbacke xalifa Cheikh Modou Assou Mbacke suñu borom yàggal lool ko wér da yàggal ko suñu kanam di nuyu mbooloo mu mbokki taalibe yi waa daayira bi ñëpp ñu fi teew ñëpp soxna mère Famu ji mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi ak mbooloo mu membre yi fi teew teewal fi waa daayira mi fi daal xóoral maram gi yëpp ñu ngi leen nuyu kenn ku ne sa tur ak cee sant comme bu defee rek nu ko suñu àll waxee rek daanaka li ci ëpp rek ci wax ji waxoon na ko dañuy tënk wax ji rek dara warul maam kàddu yi lu li wàccaay ziar boobu nga xam dañ daan def at mu jot te ren muy dëppoog le 21 avril dimanche muy vingtième édition de ñaar fukki at ci ren ñu koy dajale di ko yóbbu ci sëriñ bi di ñaan yàlla nga yàgg taxaw yàlla nga yàgg yóbbu ndax xëy tàmbali yomb na waaye yeggale moo jafe yàlla na sëñ bi dimbali bañ mën a àggale ci jàmm ak salaam te ñu defee ko ni nga sëñ bi bëggee ziar bi nag nañ ko daan defee rek daanaka am na tuut li ci soppi waaye bëriwul <coughs> ginnaaw bu ñu sonnee li jëm ci addi ji mooy mbooloo membre boo xam ne mi ngi ci biir daayir bi lu commencé ci tuut tànk yi ba ci mag ñi lu commencé ci góor yàlla yi ba ci soxna yi kenn ku ci nekk li nga xam nga moom nga war lool waa daayira bi li nga xam ne moom nga warul sëñ bi xam nga ko li jëmee ci tuut tànk yi tuut tànk bu si nekk soso na ko lu toll ci junni ci addiya li jëmee ci góor yàlla yi ku ci nekk waa daayira bi sosoon nañ lu toll ci ñetti junni li jëmoon ci soxna yi soxna bu si ne sosoon nañ ko lu toll ci ñaari junni muy addiya yooyu xoon daanaka at ba at lañ koy laaj mu jëm ci sëriñ bi kenn ku ci nag kenn ku ci ne bis bu la ko sëriñ bi jaralee nga jaandu ko ngir jëm sëriñ bi nga joxe ko ndax liggéey suñ jaam moom denc la budul yàqu kon nag ginnaaw bu ñu soññee ci li jëm ci daayira bi ak mbooloo mi ak waa membre daayira yi nga xam ne ñoo ci biir daayira bi dañoo soñ ci mbooloo mu membre boo xam ne nekku fi ñoom ñi nga xam dëgg yàlla ñu jàmbaar nañ lool ci liggéeyal sëriñ bi muy mbooloo mu programme boo xam ne daayira bi da taxawal kenn daaw leen ci man ñi nga xam ne nekkuñ fi ñoo nekk ci Europe ak yeneen dëkki Afrique yi ak yi nekk ci sow ñoom ñëpp bàyyiwun kenn ndax duñ mën a lim benn par benn ndax duñu xaj ci programme bi waaye fu waay nekk ci àdduna bi rek na xam ne ziar bi nga xam ne ñoom moom la daan wooteel di dajale sëriñ bi addi bi ñu ngi waat ci woote bi te ñu ngi waat maam ci dajale bi ndax dajale bi nag ñu ngi koy tàmbalee maam ci biir weeru koor gi ndax mbokk mbokk taal bi tàmbali nañ di joxe addi ji kon ñu ngi bëgg daal bala ñoo wari kenn ku si nekk matal si ziar wala mu cate nga xam ne bu nu waree rek kenn ku si nekk da ngay mottali mu jeex waaye bëgg nañ daal ci biir koor gi ku munta matal nga fexe ba sa addi ji maanaam sori lool ndax li at ba at la te kenn ku ne xamoo ne sa bopp ne ndax bu déwénee dana lu fekkaat dana lu fekkaat wala déet dañuy ñaan nag mm, ñëpp des fi kenn bañ a màngi yàggoo taxaw suñu borom may ñu fonu gudd bu ànd ku wér kilifa yi ne ci koñ bi ak maire ak paa ak soxna yi ak tout tànk yi bàyyuñ kenn bu ba dimanche muy le 21 avril ni nga xam ne moom mooy heure bi muy fukki waxtu juróom muy 15 heures fu mu jotee bëgg nañ képp koo xam ne maanaam bëgg naa fekk ziar bu mu génn ndax nañ naan def moom lañ koy defee muy maanaam dajaloo ci bopp koñ bi fee ca capital ba muy bund ñegeen dajaloo ñëpp ñëw kenn bañ a manqué ñu sol déguisement yi comme nañ ko daan solee ñu dox ndànk wutali kër sëñ ba bu nu yeggee jàngat xasida yi jàng jaarale kàddu yi sëñ bi sant mboole bi ñaanal leen ñu jëbal ko addiya ba déen noonu la nga daan defee ren mi noonu lañ ko bëgg a defee bëgg nañ daal kenn bañ ko wuutee ku ci nekk mu fexe ba diggissement mat ah, laxasaay mat te murte waaye nag balaa loola na fexe ba a addiyaam mat bàyyiwuñ kenn képp ku mën a dox rek ndox dox yooyu noonu ñu ngi sàkku ay tiyaaba fa yàlla ndax bépp jóge boo xamante ni mi ngi jëm ci liggéey Sëriñ Tuubaa rek ay yiw yoo xam ne maanaam kenn mën koo xiyaas kenn kenn mën ta xam lim bi ak njariñ bi kon nag ñu woo ñëpp kenn bañ a manqué di ñaan yàlla jéeg ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu صراط المستقيم وبسعيد كلنا بلا سعيد إهد جميعنا صراط المستقيم وبسعيد كلنا بلا سعيد لك خطاب يا قريب يا مجيب يا من به لسمني خير عجيب هب لي وللذين تعلقوا بيا هدى به لخير من إياك نعبد ونستعين فإنك الم المعبود والمرين دلتنا بك عليك يا رقيب يا من به يقله كل النعيم يا ذا الصراط المستقيم أبلنا هدى به يقبضنا من قبلنا يا ذا الصراط المستقيم أبلنا هدى به يقبضنا من قبلنا يا ربنا يا يا ربنا يا ربنا يهبنا وجلنا سواد دين لفائقا وتفنا عند مع الوبائقا وبيننا وفي مع الأولاد